bu njëkk bi mooy ñun ak wàllu te président Wade jiite ko dañu fas yéene ànd dem ci législatif yi allah mais li ma leen bëgg wax mooy dañ koy gañe incha allah dañ koy gañe gis nga affaire dañ koy gañe gëm leen ko dañuy gañe dañuy gagné dañuy gagné dañuy gagné c'est sûr incha allah ak kàttanu yàlla ak ndimbalam. ma bëgg leen wax ne Macky Sall mënul fexe ba duñ ko tulli duñ dañ koy tulli dañ koy tëcc mais mais pour mu am dama dañ non dañ koy tëj c'est vrai tu as raison dañ koy tulli dañ koy tëj mais dama bëgg rekk ngeen jàpp benn yëf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 ñu dal ñu dal ñu dal ñu dal gars yi déglu leen déglu leen déglu leen président nee na su ngeen dégluwul du toog déglu su ngeen dégluwul du ñu ngi la présence des acteurs culturels ñoom nit dof Queen Biz Ngoti Ngom Mohamed Ngoti Ngom ñoom ñëpp ngi fi ak tous les mouvements yi nga xam ni Sénégal moo leen ñor bëri nañu mënuñoo lim ñëpp président Sonko nee na dafa am message pour yéen waaye foog ngeen toog déglu ko ñu ànd dal nee message bi ngeen doon xaar ngeen toog ànd ak dal déglu ko jërëjëf gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaan ñu teewlu tuuti parce que li ñuy waxtaane dafa am solo